jooju mbaaw ñu si ay maa lay fay. sant alhamdulilah. gis ñu maa ngi woon sumay entraînement rek maa ngi fi de daw ma fen combat bi moo la dépassé. dépassé combat bi dépassé wu ma de. Euh, combat manuma dépassé naa combat ne waaw. gisuñu la ba nga doon nga jël Tapha Mbeur. lamba moo ñu boole moo tax lamba moo ñu boole moo tax ñuy bëre a ah. waajaay combat bi. waaw ah. waajaay si chaque jour ñu ngi si chaque jour waajaay combat bi di ñaan yàlla na may ndam le 24 décembre incha allah. xam nga adversaire naa ko champion la. waaw lu mu laaj ak incha allah dinaa lu mu laaj ak incha allah dinaa ko def. keroog ñuy ñëw ñu ne Gamou Gueye dafa dafa rapport affaire ba suba. keroog daa am lu tax. loolu bu jël woon a ne man bu ma sa yoon man bu ma sa yoon yéen journaliste yi ak promoteur yi loolu ñu sante def mais koroog daa am benn ndogal dal mais du lépp dañuy wax moo tax loolu la demee beneen saa tamit gars yi foog ñuy comprendre pour sa yoon yéen loo leen ba ngoon dañ koy def lépp luñ am si la buñ sa yoon foo ñu oo dañ leen di uyu mais ndogal bu la dalee day xam ne ndogal la moo tax korog loolu mu jëwul am ñu sante ko yàlla bu baax mais loxo ya dafa am dama koy ñaanal le 24 décembre ñaan yàlla ndam si kawam jàpp nga daan ka bu neexee yàlla def di nga xeex man bu ma xeexee bu ma xeexee loolu day nekk li nga xamante ne moo may gënal rek man su ma combat yëpp dama xeex sama combat bi ma xeex waaw yàlla baax na Idi yàlla baax na incha allah. suba entraînement yi. suñuy entraînement yi dégg nga jokkul waaw. géej 5 heures pour kontaan nga pare. waaw ñëwal rek incha allah dégg